acca waaw sama gaay babu sar Sarr Diofior mooy dugg ci nonu waaw waaw babu sar bu Diofior mooy dugg si noonu ndeysaan samp yaa ngi ci diggu gew bi ñom bin gaay ki ngunjaan ca Babou Sarr bu Diofior mu ngi ca débat débat moom Babou waaw waaw joolu Diofior baa ngi noonu ndeysaan écrit Bawol la ne xoolal ma Ndiaye Tine Ndiaye Tine ngi noonu en rouge borom blouson bu rouge bi kooku Ndiaye Tine la waaw waaw baaboo ngi noonu sama gars yi waa 100 pour Général TV vous êtes en train d'assister l'entrée de Babou Sarr alias Ndamal daru de Diofior si à l'arène nationale waaye borom musique bi du dégg musique am bi nag